Bawal TV tey jii dem seeti koo xamante ne nii daanaka ab monument la fii ci diwaanu jurubeel kooku nag mooy Amadou Sireur amadu Sireur nekk nit koo xamante ni ku ràññeelu ko la képp koy defar dàll jurubeel di jaar fi nga xamante nii mooy ci ancien garage bi jëm boru poste rek xàmmee nga ko. man bi ma ñëwee Diourbel ba léegi. 92 93. Fuuta laa jógee ñëw fii mais mun naa fi laa dëkk ndax sama famille yëpp a ngi fii waa. man ci laa xam. ne fii di góorgóorlu di defar ay dàll di ñëw def lépp. am naa boobu léegi maa ngi Diourbel sama famille ngi fii takk naa soxna Fuuta indi ko fi waaw yàlla may ñu ay bant quoi ñu ngi fii nii ak Diourbel. Eh, Amadou Sireur nee na ñoom yàgg nañoo am li nga xamante ni mooy carte professionnel pour liggéey liggéey bi nga xamante ni mooy defari dàll waaye boobaak léegi du benn financement boo xam ne nii jot na ko te pourtant kat chambre de métier lañ bokk te lépp loo xamante nii ñoo ngi koy def ñoom ñoo ngi ciy bàyyi seen waar. waaye jëriñu leen daanaka dara lu dul élection bu jotee ñu ñëw tongal leen ngir jéem leen a votel ñun ci la ñu bokk ci waa chambre de métier parce que am lu bëri des fois dañu naan war na am ay financement war nañu am ay réunion mais des fois da ngay ñëw ñu leen di wax yoo xamante ni daal mel na yow dañ la ci bëgg a génne wala yooyu ay élection daal lañ la jéem a bu ñu def seen élection jéem la nemmeeku pour jéem a ñëw nga woote leen. man 96 la am certificat de travail am carte mais amul benn état boo xamante ne ñun pour di ñu jéem a jàppale wala yooyu comme chambre de métier moo fi boo fa demee ay financement buy ñëw aussi fois doo koy yëg mooy problème bi. muy Amadou Sireur nga xamante ne nii tey jii daa mel ni moo ŋànk baatu ñi nga xamante ni ñooy siire xam le ne ne ne ñoom seen biir booloo nañ bu baax ñoo ngi demalante dikkalante waaye ñi nga xamante ni ñoo ŋànk dëkk bi di ay politique ñoo leen war a gën a mën a jàppale ba seen liggéey bi gën a ñol fii moom wax dëgg yàlla boobale bi ñu nekkee fii amuñu benn problème moom franchement amuñu benn problème fii moom ñu ngi fii ak jàmm ak salaam fii ak gars yi quoi amuñu problème. ñu ñu jàppale mais des fois ñëw digle benn mbir ba nga dem ba sóobu seen biir bu ñu amee li ñu bëgg bàyyi leen. loo tax ñun léegi nangatuñ ci dox yu demee noonu dañuy doxal suñu bopp rek. waaw ñun de bu ñu sañoon tey comme ku mel ni maire wala genre yu mel noonu nga xam ne fii am nañ fi ay ñu. ñoo xam ne dañuy ci dëkk bi war nañu mën a jàppale ba ñu gën a ba ñu weesu fii nii waaw parce que lii nii tey mun war nañu mën a weesu fii ci kaw lii war nañ ko mën a defaraat neneen noo xamante nii bu mu gën am doole fii nii ñu gën ñoo jàppale quoi ci war nañ ko mën a war nañ ko mën ñoom ci war nañ mën a jàppale ñoo ci dëkk lañ dëkk fi la liggéey ci waa waa waa dëkk bi war nañu mën a jàppale quoi ñun aussi loolu tam bi ci Amadou génnee xam na ne nee na bu ñeen jàppale woon li nga xamante ni mooy état bi ñoom war nañu mën nañoo defar dàll bu nit bëgg ñun tey kuñ joxoon matériel daal boo soxla mën nañu ko defaral ndax euh, xam nañu système bi ñu koy defaree matériel moo ñu manqué kuñ joxoon ay matériel ñu ubbi ay place defar ko. waaye Amadou mi ngi xam la ne wax dëgg yàlla malgré tamit amuñu ay accompagnement ñoo ngi sant yàlla bu baax ci liggéey bi ndaxte yàlla fa la bind seen wërsëg ñoo ngi ci suutur la wu di am lu yóbbu seen kër yor ci seen njaboot. waaw amee sant yàlla yàlla moom fu mu def sa wërsëg te nattu la foofu il faut nga mun a nekk. waaw mënoon nañoo bàyyi li defi leneen aussi du baax si ñun mais yàlla mi ñu bàyyi fi moo tax xam li tax mu bàyyi ñu fi boobu léegi mais ñu ngi ciy suturlu daam boo xëyee yàlla dina la wërsëgal loo yóbbu sa kër waaw loo mën a dundee aussi yàlla dina la ko wërsëgal waaw. affaire yi xam nga li moom mun naa ne mbirum business la parce que da ngay jënd aussi di jaay mun nga jékki-jékki nga jënd benn daal léegi nga jaay ko waaw mun nga ci am loo xamante nii mun nga toog deux jours sa xamante ni xam nga doo liggéey lu toll noonu mun nga xëyee nag deux jours trois jours doo ko doo jaay mais mun nga xeexee aussi affaire du neex nu war a neexee tamit waaw. ba léegi ñu dëgg ma li nga xamante ni mooy tabaski bi laaj ki nga xamante ni mooy Amadou ba xam liggéey bi maanaam mu ngi yemb bu baax nee na ute na ak bu njëkk ndaxte fi mu ne chinois yi ñoo occupé marché bi ba daanaka li ñu am daanuñu ko am. mu naan nag nu mu naan demee bu njëkk par rapport ak léegi léegi boo xoolee affaire chinois yi moo yàq lu bari léegi bu njëkk bu desoon 4 jours day yëg ne ne. affaire baa ngi dox normal mais léegi moom xanaa ñu ne la suba la nga doog am as tuut quoi mais léegi demeetul nu mu daan demee moom par franchement demeetul noonu. kii di Amadou Sirer nag rafetlu na loolu maanaam euh, yëg-yëg gi nga xamante nii yenn bawal bawal yi am nañ ko ndaxte ñenn nañu nee na bu yàgg bi ñu doon ndaw lañ koy romb di jàngi ba tey ji doon yi kilifa waaye ñoo ngi séq moom ba léegi jàmm ak teraanga. non am na fi ñoo xamante nii yenn saa ñu ngi ñëw fii sax fàttaliw ko am nañ ay jaar-jaar bari na tey jii ñenn ñi ay ay gradé lañ ñi aussi ay kilifa yu mag lañ parce que des fois sama day nit mu ne xàmmee nga ma ne noo xàmmee moo la mu ne ma yow daal ma defal ay daal boobu maa jàng CS presque war na moo daan ay vingt cinq vingt ans yàgg na ñi léegi ay kilifa yu mag lañ léegi waaw. mbokk yi tey jii bii dañ leen indiloon kii di Amadou Sireur nga xamante ni defar daal lañ ko xamee njaaram gépp a ko ràññeelu ko di leen wax ne ngeen topp ñu ba léegi di ñu suivre seen site d'information www point bawal times ak point com ak seen web tv di bawal tv boo demee ci youtube bi mën ñu faa kooj ak ci facebook ak twitter